bi fi sëriñ Touba bàyyeekoo wuy ji boromam sëriñ Mouhamadou Moustapha moom moo njëkk a nekk xalifaam ginnaaw bi Cheikh Mor Fadal Mbacke Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Abdoul Xaadir ba ci sëriñ Saliou Mbacke mi nga xam ne moo doon juróomeelu xalifaab sëriñ Touba doonoon doomam bi mujj doon xalif général des Mourides. Cheikh Saliou Mbacke mi ngi gane àddina ci atum 1333 ci ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo 1915 ci njaareem. mu nekk doomu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul ak soxna Faati Jaxate mi nga xam ne Serigne Modou Assa Jaxate mooy waajuram mook soxna Mariama Jaxate mi nga xam ne mooy waajuru Serigne Abdoul Ahad Mbacke ak Serigne Souhaïbou mu nekk jëmm joo xam ne jaaral nañ ko fépp fu doomu soxna di jaar ci njàngum alxuraanul karim ak xam-xam ci bésub àjjuma ñaar fan ñaar ci weeru korité atum 1410 ci ginnaaw gàddaay gi dëppook 18 mai 1990 ci la Serigne Saliou Mbacké doon xalif général des Mourides mu tàmbalee wéyale liggéey bi nga xam ne moom la fi waajuram mu sell wa bàyyi woon liggéey boobee sax magam yi nga xam ne jotoon nañ fay jaar nekkoon ci Serigne Saliou Mbacké yóbbu ko fu gën a kawe mu réaliser ay projet yu am solo ci dëkk bu sell bi di Touba bokk na ci assainissement bi gën a yaatal réseau bi nga xam ne moo jëm ci courant bi ay yeneen infrastructure yu jëm ci tali bi ak forage yoo xam ne taxawal nañ ko ci bërëb bu sell bi ba ci jumaay Touba ji nga xam ne salaat na ko ci ay milliards yu takkoo takku Serigne Saliou Mbacké sos ay dëkk yu bëri ak i daara ba ca gën a siiw di Xelkom mu nekk tool yoo xamante ni ñu ngi ko ko jox ci fukki fan juróom benn ci weeru koor atum junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak ci gàddaay gi dëppoo 1991 président Abdoul Diouf dagal ko 45000 hectares daal di ko koy jébbal moom Cheikh Saliou Mbacké def ci fukki daara ak juróom di ci jàngale alxuraanul karim yar gone yi waaye tamit leen tàggat ci liggéey Serigne Saliou Mbacké yërëmoon lool gone yi waaye tamit uufoot mbooleem jullit yi ñëpp la boole woon ñu doon benn boole woon mbooleem tarixa yi ñu doon benn jëmm ji nga xam ne dafa bëri woon yërmande lool ci jullit yi mi ngi fi bàyyeekoo wuy ji boroomam ci fukki fan ak juróom-ñaar ci zulhijja di tëbaski atum 1428 ci ginnaaw gàddaay gi dëppoog 28 décembre 2007 sëriñ saaliw am ci kaw suuf lu toll ci juróom ñeen fukki at ak ñaar buñ ko xaymaa ci atum jullit yi waaye juróom ñeen fukki at ak juróom buñ ko xaymaa ci atum nasaraan si